papa papa ñu reer reeraguñu de ñu reeraguñu de. reer mi ñëw léegi. ñun ñun dañoo war dafa am dafa am mbër ancien mbër yu def aller retour. <laughs> sa rakk bëre. Hmm? bëre waa leen parcelles yëpp nan nan nga ko dundee. waaw sant yàlla rek ndax uh, kuy bëri rek ndam ngay ñaan yàlla. yàlla defal na ñu ndam du def loolu di ko sant. sant yàlla bu baax a baax di ñaan ndam yi ndam yi ku li mbëru parcelle rek ku bëri rek yàlla defal la ndam. ku amul combat yàlla may la combat incha allah rabbi te boo ci amee it yàlla defal la ci ndam quoi ndax sport fi amul mbër amul lu ndam rek la am. waaw ndam rek dafa neex quoi waaw. alors mbooloo mii ñëpp tase kër Père Ba ñëpp nekk fi seen rakk yi ñëw 100 pour cent bii nii neex loolu waa parcelle lan moo koy dëgëral. waaw lii rek moo koy dëgëral mooy ñu ànd ànd boo xamante ne xam moom laa sax rek ànd yàlla mooy boole ñu ànd bu leen yàlla boole te it ñu nekk ak suñu benn papa muy père ba xàmmiwul Papa Sow ak Gora Sow ak Franc ak Modou Lo keneen ñëpp la yemale daam seen nag tout le monde moom da nga nekk doomu Parcelles rek boo amee idée bu baax am yéene bu baax comme ñëpp rek yaa ngi ci biir lu mu am mën na ko bokk ak yow waaw loolooy àdduna ko moom ñu koy sant bu baax a baax nag paa góor gi père bi ñu ngi koy sant bu baax a baax taxawaayam rafet na trop 1000 pour cent paya la ñuy wax ne waaw 1000 non 10 000 pour cent 10 000 pour cent la ñuy wax waaw. daa maa ngi ziar. waaw ci victoire bi. waaw yow tamit ñu lay félicité di félicité Franc di ko ñaanal ndam yàlla na ko jig di bëgg waa parcelle di bëgg grand yi ñoom Powa yaaram Bas Franc Goro Sok équipe bi yëpp ah, kenn di leen bëgg a wér di wax kontaan nañ ñu leen doon ñaan suñu borom defal nañu ko di ñaan la 5 incha allah suñu borom may ñu dem poisson incha allah du yenn si si ko dóor suuf. xoolal grand yaram mais grand yaram. mais grand dafa mel ni yow nangoo génn waañ bi de nangoo génn waañ bi de nu mu demee noonu. non waañ bi nag li fi nekkee moo ko soxla ndax ba ma woon añ. moo tax ñu tegaloon ma sama añ na ma boo ñëwee nga añ quoi moom laa bëgg añ nii. kon doo fi jóg. non fi moom laay toog ba affaire tàng rek ma jël ci li ma soxla rek daal di dem. seen ànd bii ngeen def 100 pour cent parcelle bi lan mooy lan lan moo koy dëgëral. waaye du 100 pour cent yi ay mag a rakk lañ dafa am ñu jiitu am ñu ci topp rek ku ne xam nga sa place. Papa Sow dafa jiitu Modou Lo topp si ñoom laay Pythagore topp si maag Franc ñooy seen rakk nag quoi topp seen ginnaaw jox leen cër te loolu moo ñu war waaw. pour yow koy dëgëral. loolu moo koy dëgëral boo dégloo say waxu grand frère kay dina dëgg ndax kër boo si nekkoon déglu sa waxu papa di nga fa yàgg de waaw. Croco maa ngi si alors champion bi gis nañ nga bokk ak gars yi entraînement musculation bi surtout alors ndax bett na la. non franchement nekkul lu mu bett dafa nekk loo xamante ne liggéey nañ ko balaa ñu yegg si fii ñu yegg si franchement Franc liggéey na te bi mu simee ko ñëpp xam nañ ne liggéey na waaw nekk na loo xamante ne franchement nekkul ñu bett franchement bettuñu. mais champion félicitations. oui merci beaucoup waay. mais mais lu waral bët yu xonk yi. ah lu waral sax <laughs> gars mooy wax loolu laa ma sa bëri daa xonk rek. yee nga ñëw ci combat boo xamante ne bu capital la woon aussi ngay bëreek bébé Saloum ñenn ñi doon wax ni combat piège la woon hmm? mais ñu gis ni euh, ñëwoo ci làmb ji avec excès de confiance. non xam nga làmb moom commencement ba fin yëpp coow la quoi xam nga coow li bëri woon na trop ak suñu adversaire communication yi mu doon communiquer xam nga mooy loolu quoi yaa ma gën a xam mais alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax yàlla may nañu ndam quoi bañ génne bañ si génne. ñu gis nii moom it gars yi dañ doon wax nii atoom xeex la ah, day ñëw pour jéem laa toucher xam nga bagaar ak yow far nga éviter loolu nga teel a nga teel a abrégé combat bi. non c'est dañu gis ñuy compétir ci mbapat bi ab léegi da ngay foog ne ñun mënuñu xeex te ñun ñun parcelle lañ dëkk parcelle fii loolu rek a fi am de xeex rek a fi am moom waaw ah, xanaa ku ñu jaay xeex moom feneen ngay dem eh, mais du fii quoi. ngay ñëw ci làmb ji jotoo def open press ñu ne sa kër dafa am naxar. parcelles yëpp am na xaar am ko wàññeeku noo ko dundee. waaw métti na trop quoi xam nga d'abord di jégalu bu bu wér xam nga rek xëy na lii la suñu borom tuddoon quoi xam nga sama tante la moo ma yar ci kër gi xam nga mu décédé nii mais di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm quoi xam nga di ko jaale sama mbokk yëpp xam nga métti na quoi métti na trop vraiment xam nga moo tax mooy loolu daal. nga am dese nan la concentration bi demee nga xamante ne yombul gaale ba am dëj yow noo def. waaw affaire bi moom ku la wax yomb na moom moo wax lu mu doon xam ma rek parce na loo xam ne dafa sës si xool quoi xam ma su sa tante sama yaay la sax daanaka moo ma yar oui xam ma métti ko quoi métti na trop vraiment bilaay. beneen bi ngay bëree. cent pour cent bi ñuy wax wala mille pour cent bi ñuy wax parcelle ñu njëkk koo sentir à deux pour cent ci sa combat bii nii Papa Sow dellu si parcelle à 100 pour cent créé fi écurie ngeen ànd parcelle gépp bootu sa ginnaaw nu mu def. waaw xanaa di sant yàlla rek di kontaan bu baax a baax parce que su ma tourné gis suñu mag yaaram suñu coach lato xam ma suñu grand ñoom Alioune Sarr grand Laye Ñombar coach yooyu noonu xam nga Balla Diouf xam nga ñoom ñëpp ñu préparé ñu teg ci bonne condition yu baax man mosuma am préparation bu mel nii ba ma doyee bëri ba léegi. Mhm. baax di leen sant parce que xam nga mooy loolu quoi métti na trop mais ñoom xam nga après xool nañu affaire nu mu demee nu mu gën a nu mu fa rafetee quoi xam nga ak nu mu aajoo ñu defee ko noonu quoi di leen gërëm bu baax di leen sant xam nga yaaram grand Balla Diouf course Balla Diouf mag Zé grand suku course laay ñombar course lato kontaan naa ci ñoom xam nga maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ak mënuñu gërëm kenn koo xam ne nag muy per per ba waaw per ba li nga gis stade yëpp moom la damay wax waa Parcelles assen yëpp ñu ñaanal ko jàppale ko parce que mu ngi jàppale jeunesse parcelle bi vraiment mu ngi koy jàppale ak doomam Mansour Séri Marème waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. tey ni ñu mobiliser stade bi rafet tey stade géej na rafetee noonu mais lan nga ji waa parcelle ba mobilisation boobu ñu. ah xanaa kenn ku ci nekk lu moom nga jox ko rek muy mag muy xale muy yaay muy papa loolu kese la te man parcelle laa dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo man awma leen lu dul parcelle man loo ma ko lu dul parcelle ma dara man moom laa gëm comprendre nga man di leen waxaat daal xam nga ñu gën a jàpp ci affaire yi ñu gën si jàpp parce que ñun amuñu dara lu dul parcelle aussi monsieur le maire Moussa Sy jàpp na ci bu baax a baax jàpp na ci bu baax maa ngi koy nuyu bu baax ngay bëree si gars yi ne Franc dafa bàyyi écurie bi ñëw ci écurie Papa Sow dafa bàyyi parcelle mbooloo ñëw écurie affaire coow li bari lool noo ko dundee. waaw yooyu yëpp c'est des détails quoi xam nga nit moom am na fooy toll xam nga ngay xool loo xam ne moo lay yóbbu ci kanam quoi vraiment parce que man parcelle laa dëkk écurie parcelle yëpp benn la man su ma ñëwee ci waa écurie Papa Sow ñee dañ ci war a kontaan normalement comprendre nga. mais da ngay jaar fii kii di gisee ne affaire ñun ñëpp wax a bokk ñun ñoo bokk benn couleur bu ñuy xeexal nañu xam ma nañu gën a jàppalante suñu biir amuñu dara lu dul parcelle PA rek. mais manqué wu la tey euh, ku mel ni Moussa Dioum nekk sa ginnaaw euh, mën nañoo wax mu yar la moom it euh, Mame Less aussi manqué wu la bu ci yokk woon tamit est-ce que du gën. non ñoom ñëpp ñi ngay wax yëpp benn la rek xam nga c'est que xëy na nii la waroon mën a demee aussi tamit. xam nga man bu écurie parcelle mbooloo laa nekk fa nekk mais combat bi jàmbaar weer si léegi foofu laa ko préparé. loolu ak demi non ay kii woon rek xam nga parce que am na lu ma soxla tamit lu ne foofu moo tax. et noonu quoi mais après dinañu dinañu waxtaan quoi dinañ trouver solution incha allah loolu kese la. jàpp nga ni di nga dem waxtaan ak say kilifa yooyu. waaw waaw. alors donc lan nga leen di wax parce que mu dal xel parce que aussi gars yi dañoo wax ni booloo mooy doole donc bu ñu amee ñaar wala ñett ñoo xam te xamee nañ la ko gisuñu la est-ce que du créer frustration lan nga leen di wax. non du créer dara parce que fii tey góor soog bu amee poisson day bàyyi écurie-am mën a bàyyi sama écurie Modou bàyyi écurie-am Yékini Junior bàyyi écurie-am ñun ñëpp ñu dem topp ko. Hmm. ñun noonu la ñu loolu la xam quoi benn ñoo bokk couleur est-ce du indi frustration. non non yëpp benn la loolu méttiwul di gisoo grand yi ñoom yaa fa la nekk ah Modou àndal mais gis nga tey ñun ñëpp dañoo ñëw ñun seen raq lañu ñoom ñoom fu mu xam nga bëri nañ ba bàyyi instant bi mais ñun ñoom xam-xam bu ne si ñun dañuy ñëw di ko mottali si ñun pour du ñu accompagne ñu dem. nga bëree nga nekk koo xamante ne neexoo wutal adversaire ñu ciy félicité jam production ak événement bi tey nu mu ko réussir jam déjà nan nga gisee jam li mu réussir. waaw di ko encouragé bu baax parce que xale la xam nga te bëgg na làmb gëm na ko koo xam ne amateur la woon ñëw waxatuñ dara mu nekk lan coach waxatuñ dara mu dem nekk promoteur comme kooku jar na jàppale jar na encouragé di wax ñëpp ñu jàppale ko taxawu ko nekkul ay lu ma dëkk fii la wala mu dëkk fii non parce que nit bu nekkee ci dëkk di def lu rafet di def lu baax jar na ñu jox chapeau xam nga waaw tey gis nañ ko sax ci euh, euh, li mu def tey fi nga xamante ne moom mooy arène national érage ñu koy félicité bu baax a baax moom jam di ko wax ni fi mu teg tànkam foofu la alors est-ce que di nga yomb wutal adversaire déjà wutal la bébé Saloum bi c'était un problème ñu yo est-ce que fu mu toll nii dina neex a wutal adversaire waaw ah, pourquoi pas làmb moom bëre la rek mbër moom boo toogee te mbër bëre woo pertement la aussi quoi ay toog imaginer nga toog ponkol jëmm nga yor sa nga sa kër xam nga nga toog deux ans te nga yaakaar ci lamb métti na bëre day métti xam nga comme boog ñu bëree nii dafi day bëre mbër dafa war a bëre quoi boog. fu mu toll nii fan nga teg sa tànk sa sa bët. non maa ngi déglu gaay rek maa ngi déglu xam nga yéen xam ngeen làmb xam ngeen ñu ñu war a bëreel aussi xam nga. ak gars yi lu ñu war xam ngeen lu ci nekk waa mais am na kenn koo xamante ne xam nga ni ñi ñooy say naataango. xam nga mooy li may wax rek làmb moom mbër boo ci tudd tey suma tuddoon grand bi ñu fay dama koy waajal te fekk wooy dañoo war a bëre rek waaw. mais làmb gëj na am ñaari ndaanaan wala ñaari ndaanaan yu mel ni euh, Modou Lo ak Balla ba ñu sentir loolu. Ah, ci sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg gis nañ ne mbapat da day metti da ngay jël fii muy jël fii boo leen tasee mu metti ba ñu mën nañoo wax ni moom ngay dàq ji est-ce que dëgg la moom ngay dàq ji. non moom carrière am la yor mooy sama carrière comprendre nga man ku ma làmb booleel damay bëre ak moom comprendre nga mais nekkuma di kii yooyu noonu non non yàlla mooy maye yàlla mooy lu mu namm ci jàmm li nit mënu ci dara. comprendre nga ma dama maa maa sama yoon maa ngi di liggéey champion la nag quoi mais maa ngi sama yoon di liggéey. mais tey bu ñu indiwoon avance am nga bëre. dañ ko ku ñu waxal fii dama ci ginnaaw dama tournel ci ginnaaw. tournel ci ginnaaw nga laaj lan ba pare. dama ko mu ne ma dama ko daan ay dama ko daan ay yoon yoon mbapat ma laajte la nga ne ma bëre dóor bokkut ak loolu dëgg la mais man du ma fi toog di wax ay waxut di yooyu xam nga bàyyil ma nekk sama yoon nekk ci lu nekk. ku ma làmb booleel incha allah dinaa bëre ak yow. lan nga wax sa adversaire Bébé Saloum. di ko encouragé di ko encouragé di ko xam champion la daan na fi ay champion comme lu muy wax rek dugg na parcelle yaa ma gën a xam tey booy moo ñëw xam ma rek yaa ma gën a xam mooy lool di ko indi waajalaat le 5 ngeen fas yéene jàkkaarloog Siteu mu war a nekk combat boo xamante ne combat bu rëy la. waaw bi mënul gën a rëy combat yu jaadu yu fi Siteu. waaw waaw. Siteu Papa Sow nga ne euh, euh, euh, Siteu. ma ne mënul gën a rëy lu fi jàll. maaf. mais yow nan ngeen di waajalee déjà Siteu moom. ah comme lu ñu doon waajee rek. la moom loola rek ni nga doon waajee moom doon ngay waajaatee rek. foogoo leen ni combat bi dafa xaw a spécial wala pour yoon adversaire bi tollu noonu. non Siteu champion la. Papa Sow champion la Papa Sow xam na lu ko war bu baax ci làmb man suma ma conseillé Papa Sow bi dama koo yëpp dinaa ànd ak moom nag fi ma war a ànd ak moom ni ma war a def dinaa ko def ak moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam di wax sama mbokk yëpp ñoo xam ne ñu ngi may jàppale ñi ma gis ak ñi ma gisul ñu jàppale Papa ñu jàppale ko bu baax a baax yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm. ñu bàyyi la nga tàggatoo nga gërëm. waaw di wax waa parcelle borom ba tey moom xam nga gis naa convoi bi maa yëpp maa ngi koy jël teg ko ci loxo ale Mara bi ma jox otom xam nga moo ma yóbbu doom nday sëñ Saliou pour su jabon dafa jóge ba Paris combat bi ñëw pour ñëw jàppale si ma maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant grand grand Babacar Gueye aussi tamit maa ngi koy gërëm bu baax monsieur le maire Moussa Sy maam Père Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm ak Mansour tamit jàpp na si di nuyu xam suma grand muy kenn xam nga muy papa mii combat bi da see jàpp lu ne la ci def amul lu mu ci deful ak sama gars yoo xam ne ñoom laa doon contactal aussi muy Goro Sock Dame Sène Laye Pythagore gars yëpp a ah, ñoom Yékini Junior waaw Yékini Junior doomu nday Ousmane ñu ngi États-Unis Ousmane am na loo ma waxoon nag ah, na ñëw xam ma di gërëm sama président fan si club Laye Ndiaye ku ci mel ni gën a Mor ku ci mel ni Laurent aussi sama waa koñ aussi tamit maa leen di jégalu bu wér xam parce que lii dafa metti quoi ngay bëree kenn du tal lekk kenn du tal naan xam nga ñoom ñëpp ñëw di si jàpp. maa leen di jégalu baax di nuyu paa yi maire yi sama morom yi sama rakk yi yëpp maa leen nuyu ak sama mag yi aussi tam maa leen nuyu. waaye di nuyu di dem ba Paris di nuyu sama sœur bu ne foofu muy Aimé Séri Zak ak sama frère yu fa ne Jean di dem ba Belgique di nuyu grand Khalifa Sankare bu baax a baax gis naa conseil ak Amadou Fall borom Espagne. waaw maa ngi nuyu tamit sama boy ne États-Unis su si mel ne ñoom Max loo jaa ay Baba Taal yooyu noonu xam nga maa leen nuyu wér ak sama beneen njaatige bu ne Washington moom xam na li may wax bu seetaanee Cheikh Cheikh Faye borom Washington xaar ma maa ngi ñëw dégg waaw di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp wax parcelle 1 ba 26 amuñu dara lu parcelle Edouard dim la jox fàttewu ma ko suñu laay ñombar ñoom Modou jox Ahmed Père boole Modou Ndiaye nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp quoi. jaajëf jaajëf Franc maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi aussi di la féliciter encore une fois di la encourager. Mhm.